السلام عليكم ورحمة الله taala wa barakatuhu yéen mbokk yi nuy seetaan ñoo ngi ñëw tey fas yéene leen a indil jëf ju réy ji nga xamante ni Cheikh Mouhamed Lamine Bara Mbacké xalif général des Mourides jëf na ko ci pàkk bu tedd bi di Touba te mooy travaux yi nga xamante ni ñeenti penc maamam ju tedd ja Xaadimu Rasuul Cheikh Ahmadou Bamba te moo di guy mbind daarul minan daarul xudus ak pencum Cheikh bu Mbacké mu naal fa ay liggéey yu mag yoo xamante ni bii fas na ko fa yéenee def mu ànd nag ak njabootug Serigne Touba gépp e, teew ci barab yooyu ngir barab bu nekk mu teg xeer wa ngir ñu mën a tàmbali liggéey boobu kon loolu lañu leen indil tey fas yéene tàmbali fa nga xamante ni bii fa la tàmbalee muy pencum guy mbind te ka fa nekk di Serigne Cheikh Mati Lay nuy ñaan sunu borom yàggal ko fi lool Mbàkke te wéral ko ak njabootu Cheikh Mahamadou Lamine Bara Mbàkke képp kon bi nga xamante ni bii Cheikh Mahamadou Lamine Bara xalif général des Mourides egsi na monsieur Bari mi nga xamante ni mooy directeur des travaux bu Sotracom bi nga xamante ni ñoo yore liggéey bi leeral na sëriñ bi li nga xamante ni mooy liggéey yi ñu war a def foofu ci guy mbind kon ñu bàyyi leen ak Bari ngir mu leeral sëriñ bi li mu nar a def foofu ci guy mbind jërëjëf liggéey biñ na ma def ci pencu kër sëriñ Cheikh Mati Lay Mbàkke mooy lëkkale ay yoon yoo xam ne dafa jóge ci tali yi nga xam ne ñoo ko wër te jege te jege bërëb bi ngir def fi ay tali yoo xam da jugee ci tali yooyu ñëw ci bërëb bi ci penc mi fii ci wàll lëkkale boobu am na ñaari tali yoo xam ne dafay jóge ci yoonu daara bi benn bi ak beneen bi jógee ci yoonu daara bi mais mi ngi déparé ci wetu cimetière bi loolu yëpp ngir ñëw ci bërëb bi ci bërëb bi nag prévoir nañ fi def benn tali boo xam ne dafay wër kër sëriñ bi boole kook jumaa ji li wër jumaa ji kër sëriñ bi yëpp dañ koy wëraleeg tali beneen tali mi ngi jóge ci corniche ba ñëw jéggi rocade 30 mètres bi nga xam ne moo wër Touba ngir ñëw ci kër sëriñ bi loolu yëpp nag boo ko gisee boo boo gisee li ko waral mooy euh, yombal aksi bi fii ci kër sëriñ Cheikh Matile ci penc mi fii ndax bu tali yooyu ama yow ñëw fii dana yomb lool te ci wàllu liggéey bi nag liggéey bu mucc ayib lañu fi prévoir ndax tali yi ngay gis ni dañ ko def tali boo xam ne yaatuwaay bi dana toll ci juróom-ñaari mètre te juróom-ñaari mètre yooyu tali kese la oto yi kese ñoo ciy daw ci tali boobu wet gu nekk prévoir nañ fa def ay trottoir trotoire yooyu nag ci leen nit ñi di dox bañ xat-xat loog tali bi ak oto yi ci wàll tali bi tamit prévoir nañ ngir moytu tata ndox yi un volet bu ñuy wax volet assainissement assainissement bi nag moom li eh, ci li mu tënku mooy jël ndox yi nga xam ne ndox taw yi wàcc ci tali bi dugg ci regard yi ndax ndax dañ prévoir ay regard yoo xam ne ci diggante juróom fukki mètres yu nekk dañ fay def regard yoo xam ne ndoxu taw yi bu wàccee ci tali bi fële dugg directement nga xam benn ndox dootu taw ci tali bi ndox yooyu ñu jëlee ci tali bi nag fas yéene nañ leen lëkkale ak ay puits ay puits ay ay ay puisards kooku ci benn solution yi la ndox yi dugg nga xam ne buñ jugee ci tali bi dugg ci puisards yi ci biir suuf si dem wa ilaa loolu ñu ngi prévoir tamit ay conduite yoo xam ne day lëkkale digg point yooyu yëpp ngir ndox mi nga xam ne bu ko collecté léegi mu jaar ci taux dem jokkoog taux bi nga xam ne moo nekk ci corniche dañ ko nam ma def ci wàllu assainissement Touba. loolu daal mooy liggéey bi nga xam ne moom lañ nam ma def fii nii ci bërëbu kër Serigne Cheikh Mati lay te ñun wàllu entreprise jël nañ sul matuwaay yëpp ba taxaw dèjà comme ni ngeen ko gisee machine yeeg yooyu loolu daal sëriñ bi loolu moo nekkoon suñu taxawaay fii. te loolu mooy liggéey bi nga xam ne moom lañ bëgg a def fii ci bërëb bi ni waxaatibu nasaaratullah fi rabbihim li ma bigi mudarra Mouhamadou Lamine Bara Mbacké xalif général des Mourides ànd na ak délégation bi mu àndal ñëw fi nga xamante ni bii mooy daarul minan di pencum Cheikh Mahamadul Bachir moom ku tedd ci xaadimu rasul Cheikh Ahmadou Bamba bi mu egsee fekk na fa Serigne Mountakha Mbacké mi nga xamante ni moo toog toogaayu Cheikh Mahamadul Bachir ñu ñaan sunu borom yàggal ko fi lool Mbacké te wéral ko ak njabootu Serigne Bachiru Mbacké gépp foofe itam bari leeral na li nga xamante ni bii moom la Cheikh Mamadou Lamine Bara Mbacké xalif général des Mourides nar a def foofu ci quartier bi nga xamante ni bii mooy daarul minan ba mu noppee itam sëriñ bi teg na xeeru kon dañu leen di bàyyi ak bari mu leeral li nga xamante ni sëriñ bi moom la namm foofu di daarul minan fii moom ci wàllu wi ci pe ci pencu sëriñ Basiru liggéey bi mu fi nar a def comme maanaam liggéey bële rek ngir yombal yegsi bi fii ngir yom ngir yombal agsi bi fii ci penc bi léegi fii nii ñu ngi fi li ñu fi namm mooy def benn tali boo xam ne dafay jóge kër Serigne Abdou ñëw ba ci penc mi bu ñëwee ba ci penc mi nag dana wër dana wër dina wër kii bi euh, kër sëriñ bi ñëw ba ci kër sëriñ mun Serigne Mountakha kër Serigne Mountakha tamit tali bi dana ko wër bu ko wëree boole lëkkaloo kër sëriñ Basiru war ko dellu bu dellu see nag dafay dekk benn xàll boo xam ne dafay dem directement ba ca corniche ba xàll bi nag dana traversé rocade bu 30 bi nga xam ne moom moo war Touba. fii tamit comme ñu ko namee def fële rek euh, tali boo xam ne bu mucc ayib lañ fi nar lañ fi bëgg a def boo xam ne comme fële largeur bi dana mat juróom-ñaari mètre trottoir yi tamit dañ fi def ay trottoir comme ñaari bërëb yi nag seen yaatuwaay tollawul trottoir yi moom dana changé waaye lu jëm ci tali bi moom amul benn changement juróom-ñaari mètre lañ fi def ñu mucc ayib tamit. fii tamit bon si wàllu ndox mi comme ni ñu ko waxee fële dañ fi def ay système de collecte ay points yoo xam ne ndoxu taw yi fële ñëw bu ndoxu taw yi duggee ñëw dem ci puits d'infiltration yi waaye illaa ñu def ay conduite yoo xam ci lañ def ndoxu taw bi lëkkale ko projet assainissement bi nga bi mag bi nga xam ne maam si kii bi Touba fi ñu toll nii loolu daal solos liggéey bi ci pencu Serigne Bassirou bi jërëjëf bu ñu jógee Daarul Minan Cheikh Mahamad Lamine Bara Mbacké xalif général des Mourides ñëw na ci penc mi nga xamante ni maamam ju tedd ja xadimu rasul cheikh ahmadu bamba fi la ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam sallam feeñoo woon ci weeru kooru 1895 bi mu ñëwee itam fekk na fi ki fi toog toogaayub cheikh mustapha al karim di serigne ahmadu al moxtar nu ñaan sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ko ak njabootug cheikh mustapha gépp bi mu egsee nag moom xalif général des mourid monsieur bari def na ni mu ko defee woon leeral li nga xamante ni moom la Cheikh Mouhamad Lamine Bara Mbacké nar ci pencum daarul xuddoos mi bi mu noppee itam sëriñ Bachir Abdul Xuddoos sàkk woon na ngir sëriñ bi def fa ay ñaan sëriñ bi jox ndigal Cheikh Muntaqa Mbacké mu yëkkati fa ay kaddu bi mu noppee la sëriñ bi teg xeer wi kon ñu teewlu li nga xamante ni bii moo xew foofu ci daarul xuddoos fii ci daarul xuddoos ñoo ngi nam ma def benn tali boo xam ne dafay jugee ci kër sëñ Axma fi mu tali bi jëm ci mosquée bi bu jugee kër Serigne Axma ñëw ba ci penc bi comme niñ ko defee ci yeneen gox yi penc mi fii tali bi dana ko wër wër penc bi wër kër sëriñ bi après bu wëree kër Serigne bi dafay jaar ni ñëw aw ci yoonu kër Serigne Moustapha Saliou daal di continuer jubal direct daal di ñëw ba ci rokaat 30 mètres bu ñëwee ba ci rokaat 30 mètres bi nag dana ci daw dana ci yéeg tuuti ci mu tolloog ñaari angle doo ko jàdd mbedd boo xam ne du koy dem lëkkaleeg corniche bi. léegi képp ku jógee ci wàllu corniche bi mën nga daw ci tali ba àgg ci penc mi comme ku jógee ci beneen tali bi ni jëm ci mosquée bi nga daw ba àgg ci ci ci penc mi tamit léegi nag tali bii nag dafa boole lëkkale ñaari penc penc Daaru Xudoos ak penc euh, kër Serigne Souhaïbou loolu mooy solos tali bi léegi nag comme yeneen bërëb yëpp tali bi fii tamit euh, nam nañ fay def tali bu mucc ayib comme euh, xaw na yaatu tuuti fii moom nañ fi def tali juróom-ñaari mètre boo xam ne ci lay oto yi daw rebord yi tamit côté bu nekk nañ fa def accotement yoo xam ne ci lay nit ñi di de dox bañ a xatloo tali bi ak kii ak oto yi léegi bu loolu weesoo tamit ci wàllu ndox mi tamit jël nañ ay matuwaay yoo xam ne ndox mi ci ndox mu taw bu fi wadd ci lay jaar dugg seey ci biir suuf wala waa ñu def ko ci conduite bu dem lëkkaloo projet assainissement mi nga xam ne fi ñu toll nii ñu ngi koy tàmbale te mu wër Touba gi yëpp nga xam ne benn ndox dootul taxawatu ci tali bi te tali yi def bu soobe yàlla ak euh, norme technique yi ñu ci nar a appliqué da nekk tali yoo xam ne nu gudd fan bu soobe yàlla mën a attan lépp trafic buñ koy sos waaw loolu daal mooy solo si ci ci ci diggante penc kër sëriñ sooy bi ak penc daaru ah, ah man mbàkke amuñu lenn luñ ci yow lu sant rek sant la kañ la rek sant la kañ la rek ñaanal la li euh, ñu seetlu ci yow seetlu nañ ci ñett yëf yoo xam ne lu ci ne doy na Euh, mooy ndamal lislaam euh, boo ko dana jafe ndax xam ngeen fan xam ngeen ñaari ŋànk yi nga xam ne mu ŋànk lislaam mooy aj màkk ak julli aj xam gis nañ foo ko foo mu àgg ci yow foo xam ne ku la xam-xam na ko te loolu mooy mooy ñaar yooyu ñoo ñi ŋànk lislaam kon dama lislaam boo ko euh, dana jafe sa waajur bu baax wi muy Cheikh Modou Fadel di nitu yàlla pour woon sa waajur itam cofeel gi nga am ci moom ak jeex gi nga jeex ci moom takk loolu man na faj saajo yëpp biir bi teygal la loolu mooy kañ gi ñaan rek nag yàlla def euh, noo bëgg sa bopp noo bëgg liggéey sëriñ bi yàlla may la wér ak kattan ak fan loolu moom nu amul leen lu ñu wax kañ la sant la ñaanal la kañ la ànd ak yow ci liggéey bi ba mu ban jeex takk waaw di kañ ànd ak yow ci liggéey bi di la ñaanal yatt yooyu rek lañ am amul wax bu ñu bàyyi ko Daaru Xuddoos ci la sëriñ bi dem fi nga xamante ni moom la mujje muy pencum Cheikh bu Mbacké ba mu ñëwee mu fekk fa sëriñ Cheikh mi toog toogaay sëriñ bu Mbacké ni ñaan sunu borom yàggal ko fi lool Mbacké te wéral ko ak ay rakkam sëriñ abdul ahad ak sëriñ abdul samad mi nga xamante ni moo fa yëkkati ay kaddu ci teewaayu ñaari magam yooyu di cheikh mahamad lamin baara mbàkke xalif général des mourides ak sëriñ cheikh moom sëriñ Chouaïb bu mbàkke bi ñu noppee ci la sëriñ bi teg xeer wi nga xamante ni mooy liggéeyu pencum sëriñ Chouaïb bu mbàkke bi mu noppee itam monsieur Bari mi directeur des travaux te nekk ci Sotracom mi nga xamante ñoo war a def liggéey wi moom itam yëkkati na fa ay kaddu ni mu ko defee ci penc yëpp ngir leeral li nga xamante ni moom la Cheikh Mamadou Lamine Bara Mbacké xalif général des Mourides nar a def foofu ci pencum Serigne Chouaïbou Mbacké. asalaamualeykum yow Cheikh Mouhamad al Amin xalifatu Cheikh al Xadim ñu ngi lay nuyu ci turu Serigne Cheikh Say ak njabootu Serigne Chouaïbou gépp ak taalibe Serigne Chouaïbou yëpp di la jottali cantuk njaboot gi. ak di feddil seen yaakaar ci yow ak seenu njëbbal di la xamale seen xol sedd na seen xel dal na ndax ci lañu bokk te boole nga nu ci te liggéey bii wone na ne mboolem li Serigne Touba sembon muy dox gannaawam ci cheikh Mouhamadul Moustapha ba ci cheikh Saalax Serigne Touba firndeel ko wahab lana dhurriyatan tudimu al amal as salih ya qadiimu loola mel na ne yàlla nar na ko mottilee ci sa loxo. te loolu firnde ji mooy al amala saaliha ji sax mas na cee dégg ne sëriñ Saaliw mi ci mujj lam semboon te àggutoon ci sët yi lay mate wa hab lana dhurriyatan tudimu al amala saaliha kon Mbàkke ñoo ngi lay sant yow nitu jëf nga kon wax ji jërul muy gudd noo ngi di sa njaboot di say taalibe foo nu joxañ rek fala noo ngi feddil sunu njëbbal di ñaan yàlla ci daraje Sëriñ Tuubaa mu may la kàttan akuk wér ak yàgg fi ba mboolem li nga yéenee liggéeyal Sëriñ Tuubaa nga mottali ko ci sago ak ci biir ni nga ko bëgg asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaw li liñ namm ci yeneen penc yi ñu jógee rek moom lañ namm fii ci pencu Serigne Sohaybou bu Mbàkke fii nag tali bi ñu dooroon te muy dem ba daaru pencub daaru Xuddoos moom mooy continuer ñëw fii ba ci pencub Serigne Sohaybou bi bu ñëwee nag dana wër jàkka jeek euh, li wër euh, li ko li ko dandu lépp bàyyi nañ fi espace boo xam ne dina doy pour taalibe yi maanaam bu amee manifestation yooyu tali bi dana ko dand lu bëri daal di wër gox bi wër kër sëriñ bi ak jumaa jeeg li ko wër léegi bu jugee foofu nag après ci lay continuer dem nag nekk benn xàll boo xam ne day continuer ba dog rocade bu 30 mètres bi bu dokee rocade bi nag ci lay dem tamit moom it lëkkaloo corniche bi léegi képp ku jógee ci corniche bi war nga mën a jógee ci corniche bi daw ba àgg ci penc mi te doo laal ci suuf si ci kaw tali ngay daw comme boo jógee tamit euh, ci kër Serigne saaliw Euh, mën nga jógee foofu ñëw ba ci penc mi te doo laal suuf loolu daal mooy sos liggéey bi ci wàll bii nii léegi nag tali bii nag moo boole lëkkale ñaari penc yi dem na ba ci corniche bi waaw comme niñ ko namee ci yeneen bëri bi moom lañ ko namee fii rek def liggéey boo xam ne incha allah bëgg nañu mucc ayib def ko tali bu yaatu def foo xam ne fa leen nit ñi jaar bañ a xëccoo tali bi oto yi ak foo xam ne tamit ndox yu taw yeeg ñoom seen yi nga xam ne mën nañ yàq tali bi fa lañ leen di jaarale ba nga xam ne daal du ci am benn gaañ-gaañ ci liggéey bi lol dal bu ko bu soobee yàlla comme niko khalifa bu beugé dal inshallah dinañ ko doxale noonu te na ñaan yàlla ñaan khalif bi mu ñaanal ñu tamit ngir liggéey bi niñ ko sum niñ ko sumbe ni ñu àggale ko ci jàmm ak salam ah do mu ci ay